situation bu nekkee dafa am jafe-jafe ci yenn côté yi il faut ñu xool ñu koy saytoo te lenn si jafe-jafe yi mooy ay retours yu xaw a métti parce que nit ko aussi bu amee fu jaar am ay jafe am na solo réewam taxawu ko Sénégal yàgg na ko def mais dañ gis ne war nañ ko gën a mun a defar mu gën a baax. difficulté yi wax nañ benn mooy nu ñuy fexe ba suivi bi di am koo xam ne commencé nga ko traité am na loo xamee ne naam du ci du ci ñun parce que booy suivre nit ba ci ak mu jël ay bagages am dem. munoo ci dara mais ban mooy pexe bi est-ce que bu demee doo ko booleeg sa beneen naataangoo bu nekk si beneen région donc yooyu yëpp moom mooy solos waxtaan bi li ciy topp nag mooy après recommandation yi dafay am lu ñuy wax feuille de route maanaam fu ñu jëm foofu nag euh, la ñuy dem jébbal kilifa yi lépp li ñu waxtaane pour que ñu mun a jàll ci lu ñuy wax mise en œuvre